mbirum sëñ Touba war nan waxtu wu nekk noonu taalibe yi ñuy gën di takku ndaxte moom mbiram dafa xas sotti ba noppi lum lum jaayanteeg boroomam la lum liggéeyal boroomam la lii am na ko ci njëg lii am na ko ci may lii am na ko ci sañ-sañ mbirum sëñ Touba mépp nag du xel man di lijjanti ndax yaara siq sëñ Touba fadlullahi wa rahmatuhu الله موي اك ماي rahmatullahi الله موي اب سان سان lu ci ني سونو بروم واخوت ني لي nga may defal ma may lako wa an al fadla sunu borom neena bi yadillaahi waaye wa daf ne man yasha kon ci coobareem la koy defee rahmatu in mun wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha kon yar yoyu mom mënee su ta tawil seigne touba mënee su xam ndax ci diggante ñaar yoyu la nek dafa wax nag ne danan dem ba nga xam ne muri dëgg du dégg wolof murid dëgg du dégg wolof te loolu nan ko bàyyi xel bu ngeen bëggee mu leer leen mooy fii mu ne jullit dëgg du dégg arab Pakistan ñi gën a gëm yàlla ak lislaam lañ duñuy dégguñu arab du ñuy naar Indonésie du ñuy naar Malaisie du ñuy naar Iran du ñuy naar nun ñii du naar feneen du ñuy naar te dëgg dëgg lislaam ñi duti naar ñoo ko doxal te nañ ko doxali ñëwuñu ba màkk ñu nangu nguur ga ñëwuñu dina nangu ko dañoo dem dañoo ñëw tibb tibb ci lislaam la yàlla soxla dem fa dëkk nag di ko doxal na nan wattu nag loolu dal na di nattable di gamgam le di werante naan nii naan nii bañ a nga xam ne ñoom fañ wara tek seigne touba danañ ko fa tek ñu ñëw ñu ñëw jël ko te seigne touba mo ne danañ dem ba murid deug du du deg wolof te it sunu borom mo ne ya ayyuhal ladhina amanu may yartadid minkum an dinihi fa sawfa yati allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin ala almuminina a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laa'im dalika fadlullahi yutihi man yasha alquran dane yen julit ñi su ngeen deful ndànk di werante di di di di di di di di di di di nattable dana fab ay nit yoo xam ne ñoom bu ñu dikkee dañ may bëgg nañ ma war a bëggee ma bëgg leen na leen war a bëggee séen alal ak seen ma gënal leen ko te duñ duñ duñ duñ faale kenn ca loolee ñuy def loolu nag nañ ci jëkk ñépp ndax sëñ bi feeñ na ci noonu sëñ bi nekk na fi noonu sëñ bi bàyyi na nag boppam nañ ko jiital ci sunuy xalaat ci sunuy jëf nañ ko jiital ci sunu lu ne bu nu fabu des di jox sëñ bi nanuy fabu des di jël te lan gën la ñu jox ko sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullah